ko côté bi na ñëw côté bi kaay nii waaw non kaay nii ba pare waaw Fanta waaw dama koy jël waaw Fanta taalal ma micro bi taalal ma micro bi ah, xaaral xaaral xaaral

ramdire no foti kon yimɓe no foti minen foofo ko ah. sappo e goho nee na si biir lañ nekkoon euh, ñoom fukk ak benn la ñu yaa sappo e goho wonno sappo e goho sappo e na fukk benn la ñu heddi ɗon cinq personnes eh, eh, eh, nee na nee na des na si biir juróomi nit ah. no yaari aɗa waawi haalde ɗum eyyi eh, mi wawi haalde seeɗa yo hal parce que ko pues nder ɗon ɓe machine ngaji ko be heli leydi ha gasi be heli leydi don ha gasi hino hoy nder toon hino heewin ɗon ndiyam ndiyam ndiyam ne heewi nder toon koɓe heeli nder toon ton ha gasi joni noon koɓe heeli toon ko ha gasi ko allah wali ko ɗeela balla fof komin golla hande tigui waɗni ko dira be heli jono ko jippi ko jippi der minen min ndeerta wonno komi dogi mi yalde eyi an ka dogɗo jaltuɗa dogɗo mi yalde eyyo eyyo batiment hol hol waktu mo mo o mabɓi e leydi wat ah peut être onze heure dal onze heure waaw onon ko jom galle o liggeto on ɗo kanko ƴettumoɗon pour liggey eh mati on on gandano no wadi securite wala ala securite mais e faman ɗumi est ce que an ka maçon walla a wona maçon an ka manœuvre manœuvre mi oh. ok ok manœuvre eh, ɓe mbi goto sankima hen eyi eh, ko hol emo e moɗon e hol cankiɗo hino ɓe heewi ɗo sankiɓe kay ɓe heewi e cinq cinq cinq waw kamɓe foof ɓe maayi ah, min kam mi fama ɗum oh, de a famani ɓe maayi a jarama a jarama dafa am yaay booy dafa am looy yëkkati ay kaddu. déjà non déggul olof moo moom en résumé en en résumé moom en résumé euh, si biir la nekkoon bâtiment bi bi mu daanoo bokk na si ñi nga xamante ne ñoo njëkk a daw génn nee na 11 lañu bi ñu nekkee 11 euh, donc am na 6 yoo xamante génn nañu.

Mohamed camion baa ngi ñëw. waaw non damay damay kat ba léegi camion baa ngi ñëw. waaw saa waay man fi mu toll bu demee général si lekkoon bi. bàyyi ko rek ñoo leen jaar nii ñoo leen jaar nii.

Euh, yëf yi bi mu amee bokk na si ñi nga xamante ne ñoo njëkk a daw génn euh, donc moom daw na euh, donc génn na pour l' instant donc instant bi ñoo ngi xaar yaa ngi yor sama téléphone instant bi ñoo ngi nii nekk en direct donc am na benn bulle désert boo xamante moo nekk en face moo ngi ñëw nële pour pour jéem a xool situation bi décanté ko apparemment y a cinq personnes à l'intérieur mais ba léegi cinq personnes yooyu mënuñu fexe ba nga xamante ne ñoom dinañu mën a euh, dinañu mën dinañu mën dinañu mën jall wala ñu mën leen génne quoi euh donc mom xalé bi néna euh, kër gi dañ ko doon rénover té aussi dañ ko gas ay gas yu xoot bo ndox doon ball lolu bokku na ci li tax euh, kër gi màbb donc nek na lo xamante apparemment euh donc architecte bi wala maçon bi wala propriétaire déjà danger bi si nekkoon ñom xamoon nañ ko mais pourtant ñu jël ci risque boo xamante ne amaana amaguñu confirmation mais juroomi nit ño xamante faatu nañ ci ñak nañ ci seen bakkan mu nekk benn affaire boo xamante ni ñoo ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax mbooloo bi nag bari na lool nag gis ngeen fii yëpp mbooloo la donc mbooloo bi bari na lool euh, fii yëpp mbooloo la euh, donc képp ku dégg xabaar bi rek da nga ñëw seetaan yi euh, donc vous êtes en direct sur la sen tv point info ñoo ngi ni nekk en direct lépp lu si mën a am rek dinañ leen ko dégtal

nous avons ci je ah, crois camion camion pour camion camion ba na ngeen camion bu weex ba na ah, ah, machine caterpillar bu ci kaw pour jéem a xool nu ñuy def pour génnee quatre personnes yi des ci biir. lii rond point Cyprès la rond point Cyprès en face Auchan bu Jacques Mbao bi boo ñëwee ba ci Auchan bu Jacques Mbao bi foofu la en face immeuble yi nekk foofu ci rond point Cyprès Ah, yéen yeneen yi seen camion bi camion bi ba tey yoon lañ koy wutal pour mu ñëw avancé na nii mais dafa taxaw parce que euh, kii bi mu yeb ci kawam oto bi moo rëy sûrement il faut que oto sapeur yi xaw a déplacé wu ci pour mu mën a dugg si pour mën a ñëw dimbali quatre personnes yi des mais Babacar moom dugal nañ ko ci ambulance bi yóbbu nañ ko. retard de 40 minutes sénégalais commentaire bi non dafay ñun da koy direct xam nga commentaire ku nekkal li muy wax si am na ñeneen ñuy direct fii bay nuwul de abonné daal abonné ñuy direct mais ay jeunes yi direct yi gisuma leen de bu ko tax ñu ñëw waaw moom moo ñu direct mais gars yi ñëwuñu de gars yi ñëwuñu waaw gisoo am na ku ko tontu nee na ko Ousse dëgër nga fi glissé en direct